Bonjour, Bonjour, je bonjour bonjour, bonjour, bonjour, dina victoire content. comme Sénégalais waaw loolu moom mbégte la quoi kontaan kontaante la quoi parce que génération 2002 ak léegi dafa yàgg tamit il temps équipe bi def dara xam nga voilà loolu la quoi parce que booy bi booy booy léegi ñoom ñëpp comme voilà xam fekkee ñu woon 2002 alors léegi lii nii da ciy baax quoi lii da ciy baax pour booy xaw xam nga dundu dundu dundu dundu kii quoi voilà voilà ok loolu la dama kontaan gaañ. voilà noonu la demee. <laughs> waaw ñu lay fay bàyyi. donc tey yow ban message ngay man échange yi damaa kontaan quoi damaa kontaan bëgg naa xam nga waaw déwén déwén bu ñu waxoon sax man mii sax fekkee ma ko quoi man mii sax xam nga maanaam ko quoi waaw maanaam naa ko mais mais maanaam comme ni mu amee woon ambiance comme nii xam maam kii ba si woon quoi temps boobu nekk naa waa booy quoi affaire yooyu moo la tey si fii quoi tey kontaan naa xam nga naa tamit soo si ay bu baax ñu gën a waaw. non affaire yi métti na moo tuuti na moo mais mais arbitre tamit géré na match bi quoi jaay suñu match ba tamit waaw mooy loolu quoi nice quoi waaw. waaw lépp nice mais kontaan continuer quoi. waaw rafet na waay. Bienvenue, c'est Imson. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.